mbokk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 ah te duñ tam ndey bàyyi te a doon mbër te bañ a doon bër te a bëri nag. Ah, lu tax loolu. Ah, dañoo ñaan rek ndax. sa papa di mbër sa turandoo di mbër nga ne bëggul mu nekk mbër. waaw dañu koy ñaanal yàlla mu bañ a doon mbër mu doon leneen lu gën mbër. waaw doon mbër daa metti wala lan la. waaw na bari na coono wax dëgg yàlla yonent bi daal mbër daal métti na waaw. waaw mooy sa papa di mbër sa turandoo di mbër loolu de ka mat jaaxal. waaw sax di mbër waaye nag dañ koy ñaana am nañ droit ñaan ndax ndax xam nga yàlla moom kenn ko nekk am nga sañ-sañ ñaan ko dañuy ñaan yàlla daal mu bañ a doon mbër waaw mu doon bañ a doon mbërum làmb waaw waaw xam nga li ma jaaxal Thierno li ma jaaxal Thierno mooy mooy mbëri sax ko jëkk mi daan ñaanu ma yàlla sama doom bëre coono bi ne ci mbër lan la waaw dafa metti dafa metti dafa metti lool lool lool ndaxte euh, boo góorgóorlu lu tuuti rek yàlla su borom euh, àq gi dina bari ndax euh, booy bëri ji tali bi boo maanaam boo jógee sa kër di dem làmb ja bala nga egg làmb gox bi nga dëkk sama koñ ñëppay doyal bu combat bi jubsee ñëpp ñëppay waa koñ bi ñëppay sonn yuuxu yi bari coow la bari fekk làmb ji jeexul ah ba am ay ay ay ay fan kenn du am jàmm ak googu ak gi nekk na moo bari tam metti moo tax ne ñi euh, kenn bëggul bëri wax dëgg yàlla waaw foola boo xam ne daal foola mais euh, dafa metti waaw dafa metti daal waaw metti bëri stress ñii di daanu fii di xëm ah ñii di sonn fii. ñi la bëgg te xamoo leen. waaw ñi la bëgg te xamoo leen. ñi jooy te xamoo leen. wallaahi wallaahi dëgg la waaw. li xade boo daana doon reer te xamoo leen. waaw waaw waaw xam nga loolu. yooyu coono yooyu dafa dafa dafa métti. waaw waaw. jërëjëf Thier kontaan. man man bu Balla Gaye bàyyi bëri dootuma dootuma ànd ak mbër. mais est-ce que mën nga loolu da ngaa xas ci làmb ba pare. laa ilaaha illallaah euh, Fadel loolu man amul lu mu mënul bàyyi waaw euh, lu mu waaw ndax yar nañu ci yoon loolu te xam na xam nañ xam nañ suñu bopp bu baax a baax a baax waaw waaw waaw loolu am na yoo xam ne moom ay ay la rek mënu maa bàyyi li mënu maa bàyyi déedéet bis bu bàllagee bàyyi bëri dootuma dootuma nag mbër déedéet